dama bëggoon nga taril ma benn saar en saar boo ma tari rek man duma la wax taril ma yow boo xam ne leer na ne mun nga ko boobu laa bëgg nga taril ma ko. waaw. maa mel na saa waay ji nu tuddaati sax. bismillahi rahmaani rahim. inna anzalnahu fi laylatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة وروه فيها باسم ربهم من قمن أمر سلام هي حتى مطلع الفجر